di sant bu baax di leen sant ci wuy si bi ngeen di wuy si ci conférence de presse bi nga xam dañ ko def ngir yee nit ñi ak ngir jox leen information yoo xam ne mooy yi dëppoo ak dëgg ndax gis nañ ne boobaak léegi bëri na yoo xam ne ñu ngi koy wax ci presse bi ak ci réseaux sociaux yi dëppoowul ak li nga xam ne moom moo am ba tax ñu woote ngir joxe information yi nga xam ne mooy information yu dëgg yi Euh, ba tax ñuy leen di xamal ne euh, wàllu feebar boobu nga xam ñu ngi koy dégg ci jamono muy coronavirus ñu koy wax Covid 19 muy feebar bi nga xam ne dafa feeñ ci jamono fële ci Chine te bi mu feeñee ci jamono ci Chine euh, réew yu bëri ci diir bu gàtt jot ci ay malaat ba feebar bi xaw a law ci àddina ba OMS sax déclaré ko comme pandémie mooy feebar boo xam ne laal na àddina si yëpp. ci kaw loolu nag la Sénégal bu mu ko déggee Chine jël ay matuwaayam dal di euh, tàggat ay ñoñam tàggat ñi nga xam ne ñoo bokk ci wàllu wér-gu-yaram ak ñi nga xam ne ñoo war a taxaw loolu ba pare xaatim ay tëralin ak ay pexe yoo xam ne suñ ci jaaree dinañu mën a aar dina mën a tax tamit kaa yi nga xam ne dañ koy njort ñu mën leen teel a gis te it xam nuñ leen di taxawoo ba yooyu duñu jéggi dayoo ci kaw loolu la senegal am ay kaa yoo xam ne ay ay nit ñu bàyyikoo ci yeneeni réew lañ askanoo ci réew yooyu ñëw ci suñu réew indaale feebar bi ba bii ñuy am kaa fii ci tuubaa kaa yi ñu amoon senegal yëpp ay cas la yoo xam ne ay étranger lañ waaye yàlla dogal Touba ni mu bindoo nga xam dëkk la boo xam ne lépp loo am ci àddina bi suñu Euh, toogee ba mu yàgg mën na fi accès te ni fi accès yéen ñëpp xam ngeen ko Touba dëkk la boo xam ne nit ñi dañuy dem ak di dikk dëkk yëpp euh, ñi dëkk Touba dañuy dem ci dëkk yu bari di ñëwaat ba tax am kenn ci doomu dëkk bi bu doon dund fële ci Italie euh, bàyyi ko ci Italie juróom benn fan ci weer bii ñu nekk muy weeru mars dal di jël roppalaan bu ñuy wax Royal Air Maroc mu jóge itali jaar Maroc bésu juróom-benn fan ci weeru mars bi mu jaaree Maroc escale fa ñu contrôlé ko saytu yaramam mais amul woon feebar bi maanaam feebar bi tàmbaliwul woon fës ci yaramam donc mu jàll ñëw Sénégal ak si fi ci guddi juróom-benn fan ak tàmbalik juróom-ñaari fan ci weeru mars bi mu agsee Sénégal aussi ñu saytu yaramam ci aéroport Blaise Diagne gis ne yaramam amul benn màndarga buy tax ñu njort ne am na feebar bi ci kaw loolu la génn aéroport bi jël taxi ñëw Touba bi mu ñëwee Touba mu ngi fi agsi bésu juróom-ñaari fan ci weeru mars bi bi mu fi agsee itam xam naa coono tukki bi jàpp ko mu toog këram tëdd fa nam fa tëdde nag dafa dem ba mu am ñaari fan ci ginnaaw bi mu fi agsee le neuf donc mu tàmbali di yëg ci yaramam tàngoor sëqët bu wow ak yaram buy tàng ak yaram buy metti mu mel ne coono da ko dugg ak grippe ci kaw loolu la xëy bërsetu fukki fan ci weeru mars bi ñëw ci kër docteur bi mu agsee ci kër doktoor comme kër docteur ñu ngi doon saytu ak di seet di fexe di def li ñuy wax surveillance bi ñu ko gisee ci saasi rek ñu njort ne moom dafa indaale feebar bi ci kaw loolu lañ ko defale ay analyse wu deret jël deretam yóbbu ko fële ci institut Pasteur biñ ko yóbboo ci institut Pasteur bésu fukki fan ci weeru mars ca ëllëg sa le 11 mars muy fukki fan ak benn institut Pasteur tontuñu ne ñu malade boobu ngeen ñu yónnee woon ay analyse dafa am feebar bi ñuy wax coronavirus kon lu jiitu lool nag ñun jëloon nañ suñuy matuwaay ndax xamoon nañ ne feebar bi yàgg-yàgg dina agsi ndax loo xam ne day law ci réew yëpp te Touba nekk réew euh, dëkk boo xam ne dem ak dikk bi dafa bëri ba taxoon ñun ñu jël suñuy matuwaay bi mu bi ñu gisee ne njort nañ ko ci moom ñu dugal ko ci saal boo xam ne moom rek moo fay fanaan am jumtukaay yi war yëpp pour mu bañ génn saal bi ba tax docteur yi di ko mën di fekk foofu di ko faj ci kaw loolu itam ci lañu ñu euh, dem saytu waa këram seet ña fa nekk ñëpp xool lim bi jël seeni tur ak seeni at ak seen ak ni ñu dëkkee xool seen dëkkuwaay ba pare euh, digal leen ñu toog ci kër gi bañ a génn ngir bañ a euh, génn di wasaare feebar bi ak itam ñu toog pour ñu saytu seen yaram ci diggante ba ñu gisee feebar bi ci seen waajur ba ba muy am fukki fan ak ñeent donc ci kaw loolu lañu def ñaari fan ginnaaw bi ñu gisee kaabu bu njëkk bi ñu gis ne soxnaam dafa tàmbali di am euh, feebar bi di am màndargay feebar bi bi ñu defee ay analyse ñu gis itam ne moom itam dafa am feebar bi ñu continuer di càmbar ñi nga xam ne ñoom la dëkkal nekk ay njabootam ak ñi mu dëkkal biñ ko càmbaree ba bésu tey bi fii ma leen di wax mu am juróom benn yoo xam ne dañu gis ne dafa mel ni dañu am feebar bi ñu daal di jël defal leen ay analyse biñ defee analyse yi ñu gis ne juróom ci ñoom dañu am feebar bi kon muy juróomi nit yoo xam ne dañu ñëw dolliku ci ka nga xam ne moo ko njëkk am te ñooñ ñëpp bokk dëkk ci benn kër donc loolu ma koy leeral ndax dañu dégg ci réseau sociaux yi ak ci presse bi ñuy wax ne feebar bi dafa tasaaroo Touba ak quartier yooyu may xamal la ne feebar bi fii ci Touba ci benn kër lañ ko nemmeeku te ñi mu dal ñëpp bañ gis ko ci ñoom ci kër googu la ñu jógee te ñooñu itam ba ñu leen gisee ba léegi ñu ngi leen di taxaw te ki nga xam ne moo ko njëkk a am ba mu jógee Italie ba ñëw Touba demul demul demul fële ci Poroxaan ndax moom bés bi muy agsi Touba fekk na Poroxaan weesu na parce que moom le 6 la agsi bésu le 7 sax la agsi Touba ci suba gi donc Poroxaan le 5 la woon defe na donc moom ñu bari nee nañ dafa dem Poroxaan mais moom bi muy ñëw Poroxaan weesu na Poroxaan le 5 la woon moom le 7 la fi agsi ci guddi 6 au 7 ci la fi agsi am na ñuy wax tamit ne dafa génn këram dem siyaare ji wala dem kii ma leen di xamal ne kooku bi mu ñëwee génnul këram guddi la voyagé bi mu ñëwee xam naa dafa waroon sonn donc mu tëdd këram génnul ba bi muy yëg li mu yëg tax mu dem seet kër docteur bi mu génnee këram pour dem kër docteur la donc loolu ñu koy leeral pour nit ñi bañ a ne ki feebar dafa wër dëkk be dafa dem ci ay bërëbu siyaar ak dafa dem ki feebar ma xamal leen ne génnul këram ba mu fa génnee hôpital la ñëw te bi mu ñëwee hôpital dañ ko fa téye donc loolu dama ko bëggoon leeral ma xamal leen ne nag depuis bi feebar bi amee ministère de la santé taxawu na indi ay experts ay ay ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu gëstu feebar yu demee nii ñu ñëw jàppale ñu ci gëstu yi ñuy gëstu ak saytu bi ñuy saytu pour taxawu ñi nga xam ne dañ am jàngoro ji te it ministère de la santé dafa jëloon décision comme feebar bi ci benn kër rek la nekk mu ne kon ñamu dal te ñu gis ne defal nañ leen analyse gis ko ci ñoom nañ leen jël indi leen fan ñu taxawu leen te loolu li feebar bi nekk ci benn kër nga xam kër googu ñu fa jël ay mesures de quarantaine yu am solo moo tax ñu jël ñooñu yóbbu leen fan te loolu lim ñu indil mooy su fekkee ne malade yi mu dal jël nañ leen yóbbu fan dootuñu am contact ak personnel bi nga xam ne day amaat ak contact yeneen malaat wala day amaat ak contact ak seeni njaboot ci seeni kër kon loolu ak lu ci nit mën a wax lu baax la itam ndax su fekkee ne jël nañ leen yóbbu fañ leen yóbbu ñu ngi leen di taxawu anam yi ñu leen di taxawoo dëppoo na ak euh, xam-xam yu mujj yi loolu dañ ciy sant maintenant stratégie bu ñuy teg. dañ koy dëppale ak contexte bi maanaam dëppale ko ak ay contexte mooy tey jii su fekkoon ne dafa demewoon neneen xëy duñu jël yeneen décision yeneen décision la ñuy jël mais nii mu demee looloo tax ministère jël décision boobu may wax itam ci fan yi leeral na nañu am na ñu ñu ñëw wax ne am na ñuy jóge ci dëkku Europe yi particulièrement Italie di ñëw di toog seeni kër te du ñu dem ci kër docteur ñu nemmeeku seen yaram seetal leen ko ndax ñu ci bari ci ñoom suñuy agsi xëy na dañ dul am benn signe ba tax suñu ñëwee rek dañuy dem toog seen kër ñu doon ñaan ñi nga xam ne ñooy tukki te di ñëw fan yi ku ci ñëw rek nga fexe ñëw hôpital ñu seet la ba pare jël sa contact pour fexe di la suivre ba fukki fan ak ñeent yi weesu ndax itam ñun ñu nekk ci hôpitaux yi amuñu moyen pour xam kan moo ñëw ak kañ la ñëw fu mu nekk fu mu dëkk loolu yéen yéen ñu ci mën a jàppale ndax su fekkee ne askan wi communauté bi dugalul loxoom ci loolu risque bi mooy képp koo xam ne da ñëw indaale feebar bi nekk ci biir askan wi te bañ a dem kër docteur ñu seet sa yaram di nga wàll ñi nga dëkkal te sooy wàll amaana say njaboot ngay njëkk a wàll ba tax ñuy ñaan vraiment journaliste yi presse bi ñëpp jàpp ci ñu yee nit ñi ci loolu ndax feebar bi dafa toll foo xam ne dootul yëfu santé kese daanaka ñun ñoo ci bokk yem ñun dañu féetewoo paj mi rek waaye su fekkee eh, wàllu wàllante bi wàllante bi moom ñëpp ñëpp lay wax ñëpp ñoo ci bokk yem ba tax ñun ñëpp ñoo war a boole suñuy doole boole suñuy xam-xam boole suñuy moyen pour fexe àndandoo xeex feebar bi bañ a nekk di gingante ak di xastante wala di waxante loo xam ne jaru ko su fekkee ne euh, maanaam service de santé yi ñu ngi sonn di taxawu feebar bi defe naa li ci waru garu ñi nga xam ne xëy na nekkuñu santé mooy xool fu ñu féete agent de santé yi ba mën leen jàppale ci xeex bi ndax tey jii ñun ñëpp dañu war a sumbandoo xeexandoo feebar bi mu jóge fi comme ni ma ko waxee feebar boo xam ne su nit sëqatee wala mu tichoole wala muy wax wala mu nuyu la su dee am na ko mën na la ko wàll kooku xam ngeen ne ñun ñëpp mën nañ ñu ko wàll kon ñun ñëpp nañ booloo fexe xeex feebar bi mooy xam ne presse bi am na rôle bu mag bu mu ci war a jouer te rôle bi mooy di yeete te bañ a wu ci ay rumeur ak ay ay ay ay ay ay yoo xam ne ay critique mën nañ def critique critique yuy defar te loolu on l'attend de tout le monde ndax nul n'est parfait su ñu demee bay critique na nekk des critiques constructives maanaam ay critiques yoo xam ne dina jëmale ñëpp kanam en tout cas ñun benn yéene lañu am mooy fexe ba feebar bi comme dugg na fi mu fexe ba du du law ci dëkk bi fexe tam ba du lor kenn ci dëkk bi te defe naa yéene boobu yéen ñëpp moom ngeen am waaw kon léegi dispositions yi nga xam ne jël nañ ko d' abord dispositions yi mooy commencé nañ communication bi depuis lors ñu ngi communiquer defe naa am na ay membre presse en ligne yoo xam ne def nañ ay interview yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy diffuser ci réseaux sociaux yi am na aussi ay émissions yi ñu def ci yenn rajo yi euh, am na aussi ay euh, CR CRD yu ñu def def nañ CDD aussi Mbacké actuellement ñu ngi former acteurs communautaires yi pour engager leen ci riposte bi ci bataille bi ñuy mener contre le coronavirus nous allons nous avons élaboré un plan de communication plan bi nag dafa am ay aspect yoo xam ne c'est extrêmement important mooy capaciter les acteurs ba ñu xam li ñuy wax en fonction de l'évolution de la maladie